sage-femme bi moo ma jël ci téléphone soona si mu xamal ma sama jabar day matu mënul wax téléphone day fay téléphone soona si en tout cas moom bi woo na ma ba xamal xamal ma sama jabar faatu na man maa woo saa ay magam ñi nekk ci hôpital bi ma ne ko ah sage bi de woo na ma mu ne ma ta dee na affaire bi sax dafa ma dépassé man damaa soke ma dem ba tiim sama jabar muri ko bi ma ko muree bi ma muri kanam bi ma muree kanam sama jabar billaahi dama arrière ma gis situation sama jabar bi mu nekkee ba mattuwaale lamine bi ba lamine mu ngi lang bopp bi ak kanam bi tax toj ba wala deret bi deret bi mu ngi sañe deret bu bees tak nit ki ñëw bugg a bugg a am doom kooku lan moo toj kon eh, gémmiñ bi lan moo toj kanam bi lan moo toj bopp bi sama soxna bi mu bi muy daanu dafa dopp man dopp ma tiim naa sama soxna waa hôpital Mamadou Diom ñoo rey sama soxna ñoo rey sama jabar saa femme bi ba léegi ñoo ñuy continuer liggéey dañoo yàq sama àdduna jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaanal suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi waaye di ñaan réew mi Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm di nuyu suñu téléspectateur yi ñuy suivre euh, tey nag ñu dalal koo xam ne day suñu frère di Mamadou Balde nekk euh, ndaw loo xamante ni euh, dafa ñàkk soxnaam ci hôpital boobu di moom a du Diop mu ñàkk ko nag ci ay anam yu xaw a doy waar déglu nañ léegi ci ay audio yoo xam ne doon na ko waxtaan ak soxna si bi muy dem hôpital muy waxtaan ak moom vraiment soxna si nekk ci jàmm ak salaam euh, bi muy dem nag da doon dem pour accoucher ah après nag ci lañ ko woo ay quelques minutes ni ko sa soxna faatu na mu faatu ci anam yoo xamante ni doy na waar torop tungu nag du teew ñu netaal frère dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna man la Mamadou Balde fii ci Dakar Liberté 6 man la sama soxna ñàkkoon bakkanam ci hôpital Mamadou Diop centre Mamadou Diop depuis le 4 mars 2023 sama soxna mu ngi woon tudd Mbacke Ndiaye euh, dafa dafa omboon da doon dafa visite foofu ci hôpital Mamadou Diop musul dem beneen hôpital hôpital Mamadou Diop foofu la defee écho am yëpp ay analyse am yëpp yor naa ko mu ngi man defoon na foofu ñetti écho ay analyse waaw dafa demoon foofu pour worsin léegi ci diggante bi foofu la décédé bi muy génne àdduna nag bopp bi e kanam bi yëpp gémmiñ bi dafa toj ba mattuwaale làmmiñ bi waaw dama porté plainte depuis le 9 mars bi 2023 ba léegi nii maa ngi daw comme comme instant ni mu ngi ci yoon mu ngi ci euh, justice côté foofu moom duma ci wax wante am na droit may ñaan aduna may ñaan sénégalais yi la ma jàppale ba ma xam sama jabar lan moo toj boppam ci biir hôpital di Diop lan moo toj kanamam lu tax mu matuwaale lami bi bu muy génne aduna parce que man loolu laa ko fekkee. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. sa soxna avant muy dem ci hôpital bi ci yan condition la nekkoon. non sama soxna euh, comme li ma la wax sànq rek. Mm, dafa omboon di def visite hôpital Mamadou Diop. mooy écho bi mu mujjee def écho bi jour jour mercredi bu mu indee résultat bi mu ne ma sage-femme bi daf ko xamal doomam bi lu mu tëddee ci biir biir bi baaxul xale bi mënu ko juur normal il faut ñu opérer ko mu ñëw ma ko wax ko ay mbokkam bi jigéen ñi yëpp wax dëgg yàlla moom ma ne ko am ah bon mu ne ma waaw mu ne ma ah sage-femme bi mu ne ma su ma wàccee balaa may tëddee balaa may tëddee il faut may doxantoo tuuti ma ne ko waaw ok léegi jour boobu. man bi ma eh, jógee sport fekk naa ko ci sama nekk moom e rakkam bu jigéen e Fatou ñoom ñaar ñoo bokk ndee baay rakkam bi ñun ñoo ko yoroon foofu sama doomu Ibrahima ma ne ko ah, comme sage-femme bi dafa wax soo wàccee balaa ngay tëdd il ñu doxantu léegi kaay ñu dem doxantu ba côté rond point 6. ñun sama nekk mu ngi dëkk fii ni côté camp de Kelel bi côté camp gendarmerie bi mu ne ma ok amul problème léegi ma àndaa moom di doxantu ba ci côté rond point 6 mu ne ma baal de ah sonn naa de ma ne ko léegi ñu dem ba côté wàllu fajiri mu ne ma noo xaaral sonn na ma ne ko léegi kaañu jaar nii comme waxoon naa ko jur boobu waxoon naa ko bul togg reer comme da ngaa xaw a guddee da ngaa sonn bul togg reer ma ne ko léegi kaañu jaar fii ma jëndal la reer Ibrahima espaatu mu ne ma noo Ibrahima sànq saa mu ngi joor ay ay clémentine ay mandarine ci bitib bi man ko léegi bàyyi ma jëndal Ibrahima kilo mandarine nga yóbbul ko léegi yow ma jënd la loo bëgg a yow apaatu ma jëlal leen seen reer ñu ñibbisi jour mercredi euh, jeudi vendredi man la dogal na ñaari soona laa yoroon sama awa mu ngi jam ñaajo dugar pol fii may fii lay liggéey fi may liggéey nii fi may liggéey fii par 15 jours lay am repos su ma amee repos ma dem ci awa bi léegi jour boobu ban yow laa waroon am repos samdi keroo 21 heures laa jógee fi may liggéey et 21 heures bi ma demee ci sama keroog fekke ko ci néegam moom e rakkam bu jigéen faatu e doomu magam bu jigéen may Maymuna te sama doom Ibrahima fekk naa sax Ibrahima mu ngi nelaw moom mu ngi toog di seetaan télé suñu yeew mu ne ma ah Balla yow tey guddi nga de ma ne ko gis nga de xam nga Dakar moo mooy loolu dama dafa am li ma nekkoon di lijjante léegi jour boobu ma yekkati seen xaale dépense yi mille pour samedi bi ma ne ko am seen sa dépense samedi bi léegi comme changement bi dafa la xamaloon fii et lundi mun nga am doom ma ne ko mun naa dem léegi léegi sa biir bi guddi commencé métti soo fekkee amoo xaalis day métti ma yëkkati 10 000 faram ma jokk ma ne ko 10 000 bi da nga koy garder en attendant ma ne ko lu mu guddi guddi sa biir bi su commencé métti rek bépp ma man dinaa la wo nga woo sa mbokk yi ngeen jël tas yi dem ci hôpital yi man li ma guddi guddi ma dinaa joge ba jam ñaa ñëw parce que yor naa moto mu ne ma d' accord jour boobu alhamdulilah ñu fanaan ci jàmm ci sama nekk dara dalu ko muy bi ma yeewoo samedi samedi moom laa jëkke woo bi ma ko woowee ndekete yeewu na ba dem ci camp militaire yi ay mbokkam yi foodal foo militaire yi seen tool yi foofu la doon yëndu wax dëgg yàlla moom bi ma ko woowee ma ne ko Fatoumata Sawa soo gisee ñu tuddee ko Fatoumata maa ko tuubuloo moom Mbacke Ndiaye la tuddoon bi ma ko takkee ma tuubuloo ko ñu tuddee ko Fatoumata bintu mooy doomu yeneen yàlla sallallahu alayhi wa sallam ma la ko Fatoumata foo nekk nii mu ne ma maa ngi ci camp militaire yi ma ne ko ah man la mu ne man man baal ne man yeewu bu yàgg ma ne ko ah, man ne léegi ana Ibrahima mooy suñu doom mu ne ma Ibrahima mu ngi foyee foyee fale ci militaire yi. ma ne ko ay sax ni dara méttiwu la mu ne ma non non dara méttiwu maa ngi si jàmm jour boobu si ay mbokkam lu ñu wax man du ma wax li ma wóorul jullit la parce que sama soxna les quatre asaafula les trois laa ko bàyyi fii les balaa ma jóge jam ñaajo fekk naa génn àdduna mun naa jóge fii léegi yàlla jël sama bakkan du ma wax lu ma wóorul si ay mbokkam jigéen lu ñu wax ñu ne jour boobu moom dafa yendoo foot foot yaram footaal yore doomam keroog bu muy génne àdduna sax wallahi yaramam bi woowagul billaahi léegi foofu la yendu ci kam bi moom ay mbokkam ñu togg foofu añ ba 18 heures mu sangu sangu sama doom ci ay mbokkam li ñu wax mu ñibbisi sama kër bi mu ñibbisee sama kër téléphone am bi moo nekk ni bii bi bii bii moo nekkoon téléphone soxna si man tey téléphone bi moom moo sobe sage-femme bi dañoo def lu ñu def boo pare ñu bugg ma tuumal indi ma problème man naroon naa ñàkk sama jabar ñàkk sama doom police yi jàpp ma tëj ma ci kaso bi ci eereel. ci lan lan la lan la doon tuumalee parce que laay ñëw parce que après ay 18h 18h laa woo jël woo jël sama téléphone woo sama soona lépp loolu yëpp li mu doon wax ak moom téléphone am day harcelé téléphone am bi soo doon soo soo doon moom téléphone bi day harcelé appel. ma ne ko Fatima dafa foo nekkee ni mu ne ma maa ngi sama kër ma ne ko ana Ibrahima mu ne ma Ibrahima de mu ngi ci bitik mooy suñu doom. ma ne ko Fatoumata bul bàyyi Ibrahima ci biti yow nga nekk ci biir néeg bi parce que kër gi kër location la Ibrahima dafa soog Ibrahima su déggee moto rek comme yor naa moto day foog man maay ñëw su déggee moto day ñëw ba papa ñëw na papa ñëw na. mu ne ma non Mamadou Ibrahima mu ngi ci biti moom et doomu mari ngom bi mooy domu magam bu jigéen. ma ne ko ah bon ma ne ko ah doomu mari ngom bi foofu la fanaan mu ne ma waaw foofu la fanaan démb tey tey fii lay fanaan mu ne man saa ay saa nii su ñëwee. man danaa dem ci hôpital bi ma dem xooli ñëwaat sama biir bi mu ngi metti ma ne ko ah bon sa biir bi mu ngi metti mu ne ma ma ne ko depuis quand mu ne ma doon depuis sànq ma ne ko léegi sooy dem hôpital bi bul dem yow kese woowal sa mag Maringom parce que man amatuma numéro Maringom loolu yëpp mu ci téléphone bi mu ne ma Maringom de woo naa ko ba sonn jëlu ma muy magam ma ne ko Maringom fan nga ko wooyee mu ne ma ci mu ne ma ci numéro doomam après balaa may coupé téléphone bi rakkam bi ñëw Fatou ngi dégg mu ne ma Fatou saa mu maa ngi dem. mais moment yooyu loolu yëpp ci téléphone bi ngeen ko doon wax. téléphone bi waaw ñu ngi wax téléphone nice téléphone bi mu arrêté arrêté nga dellu nga Sénégalais yi dellu audio yi. d' accord loolu moom maa jël sama responsabilité. d' maa ngi ñaan sénégalais yi àdduna jàppale ma ba ma xam sama soxna ci ban condition la génnee àdduna. Hmm. yaa ngi dégg lé mu ne ma Fatou sax mu ngi nii di ñëw man maa ngi jël tas gi ma dem ci hôpital bi ma ne ko Fatou ma bul dem yow kese. woomal mbanigom mu ne man woo essayé ni biir bi méttiwul noonu su ma damay jël tas gi su ma eggee ci hôpital bi lu mun taxew demay lijjanti ni moom mbanigom moo woo ko mu fekk ma ci hôpital bi yaa ngi dégg léegi rakam bu jigéen ñoom ñaari ñoo bokk ndey a kooku mu ngi taxaw doomu magam bu jigéen mu ngi taxaw suñu beneen dëkkandoo jabaram mu ngi taxaw kooku sax bëggoon na ko yóbbu mu ne ko noo yow noo dem parce que yow tamit da ngaa ëmb yaa ngi dégg léegi foofu la jëlee tas gi suñu kër soo génnee buntu kër gi rek tas tali muy foofu foofu la jëlee tas bi mu jëlee taxi tamit maa ngi wax ak moom téléphone coupé nga sama téléphone bii de maa ngi wax ak moom maa ngi wax moom bu moom mu ne ma Mamadou tey nga bàyyi ci kanam su ma eggee opital bi appelé nga woote waat. kon bi dem moom dong moo àndoon. moom dong moom dong mu am nga. parce que mu jël tas gi ay rakkam bu jigéen mu ngi taxaw doomu magam bu jigéen mu ngi taxaw. Hmm. suñu beneen dëkkandoo jabaram mu ngi taxaw. yaa ngi dégg léegi bi mu bi may wax ak moom ba mu dugg bi mu wàcc si hôpital bi. ma ne ko Fatoumata ban hôpital nga nekke nekkee mu man ma hôpital Mamady loolu yëpp mu ngi ci téléphone am bi. dinaa la tegal ak ci téléphone bi noonu yow dara lu koy métti. non xam li may sentir rek euh, comme def ma biiram bi mu ñuy métti te man tamit boobu comme xam nga góor soo de soo woowee sa jabar mu ne ma damaa bëgg am doom doo doo doo ànd sa sago quoi. parce que man maa ngi préparé sama ay bagage sama soxna mu ne ma gaawal nga préparé sa bagage nga dem parce que affaire warsin dafa doy waar. Mhm. ma ko man kay xam nga damay dem. Mhm. léegi ma commencé sama bagage pour may maa ngi damay ñëw Dakar. Mhm. yaa ngi dégg léegi après bi ne ma ma ko wàcc nga ma ne ko ban hôpital nga nekkee mu ne ma hôpital ma ne ko dugg nga ci biir mu ne ma dugg ma ne ko kenn samedi moo nekkoon le kan ma su ay vingt ne ko loolu ci biir hôpital ba nga gisoo kenn mu ne ma gisuma kenn. ban ay vingt vingt heures samedi moo nekkoon le après ma coupé ko woo magam bu tudd Marème bi ma woowee Marème ma ne ko ah Fatoumata day biir bii dafa yëngatu mu ngi noonu jël na taski dem na ci opital bi hôpital ma Diop. Marème mu ne ma Marème tamit parce que moment boobu ma ne dafa defoon opération pour après après Wosin mu ne ma woowal Malingom Malingom mu ngi noonu di ñibbisi ma ne ko aw ma numéro Malingom après ci diggante bi tamit ma woo beneen magam bu tudd Ama Jarga ñooñu yëpp mu ngi fii nag Dakar. bi mm-hmm. ma ama jarga ama jarga mu ne ma eh man saa ni maa ngi nii dem Pikine maa ngi nii si biis bi maa dem Pikine léegi après ci diggante bi Marème woo Maringom bi mu woowee Maringom Maringom tamit woo Asou Asou Diol Asou après Asou dem ci hôpital bi Asou bi balaa mu dem ci hôpital bi sax ci moom lu mu wax nee na jël la téléphone ba woo sama jabar laaj sama jabar foo nekk sama jabar mu ne maa ngi ci biir ma Mamadou Diop laaj sama jabar la moo lay métti sama jabar mu ne ko sama biir bi mooy métti. maa ngi ci hôpital Mamadou Diop xam nga loolu leer na sama biir bi moo métti maa ngi ci hôpital Mamadou Diop. Mhm. astu dem fekke ko foofu asu dem na ba gisante sama jabar mhm. astu bi mu demee dem na ba fekke sama jabar ci kaw lal bi ci asu lu mu wax. Mhm. ñu ngi teral sama jabar ci kaw lal bi may jigéen ñi fu ñu amee doom. léegi si diggante boobu moo woowaat sama jabar ci téléphone am bi ma woowaatee sama jabar saa si femme bi moo ma jël dinaa leen tegal audio yi yëpp. man maa jël sama responsabilité. sage-femme bi moo ma jël si téléphone soona si mu xamal ma sama jabar day matu mënul wax téléphone day fay téléphone soona si. sage-femme bi sage bi. ma ne ko ah bon comme sama jabar dafa bëgg am doom man xaw ma dafa moo wax biiram bi mooy metti mu ne ma waaw xool nañu ko day matu ñu ngi koy xool ñu ngi koy tiim xam nga foofu su fekkoon sama jabar bi muy dem ci hôpital bi yóbbu na gaañu gaañu wax naa sage-femme bi ñaar yoon mënoon na ma wax ah seen bi yow da sa jabar bi muy ñëw dafa indaal gaañu gaañu lan moo xew balaa ñu bàyyi ba sama jabar génne àdduna ji doog woo police yow nit ki ñëw na pour am bëgg a am doom wax nga jabaram jëkkëram mënoo wax jëkkëram kii dafa indaale gaañu gaañu da ngay woo police nga ah dafa am femme bu ñëw fii bëgg a wasin wat dafa indi gaañu gaañu balaa muy génne àdduna yaa ngi dégg ma ne ko alhamdulilah léegi après comme yaggul ab su woo ma asu bi ma woowee mu ne ma ah, dañoo bindal fii Mbacke Ndiaye mooy Fatoumata ordonnance bi mu war a jënd léegi léegi ma ne ko non mbakke joxoon naa ko xaalis. mu ne ma noonu Mbacke mu ngi ci biir salle accouchement moom eh, moom sage bi ñoo ko ñun garab bi ñu génnee jox ma kii patel bi eh, kii bi ordonnance bi ma ne absurde demal ci formation bi ma ne Orange Money yor et Wave soo fekkee waaju nangu na soo demee man danaa fay Orange Money et Wave mu jox la garab bi absurde dem foofu borom formation bi nee na loolu day yeexal liggéeyam mhm. parce que clients yi dañoo taxaw mhm. astu dellu ci hôpital bi astu bi mu dellee ci hôpital bi jour boobu am na foofu benn garab bu indoo foofu jabaram pour wasin mhm. kooku moom tamit wax na parce que gis naa gis naa rapport bi man gis naa rapport bi yaa ngi dégg gis naa jour eh, changement bi ñëpp ñoom li ñu tontu yëpp gis naa ko après kooku moo jël ordonnance bi ji la ko absu dem jënd garab bi garab bi 8000 la bi muy ne garab bi mu ne absu am may naa la ko léegi man dañ ci diggante bi ma transféré sama jarbar xaalis bi mu ngi liggéey fii Thierno ma ne ko dama retiré xaalis bi si Orange mu ne nga yóbbul ko sa tante Fatoumata mu ngi ci hôpital Mamadou Diop dafa bëgg am doom mm-hmm. parce que dafa sori ci diggante bi mun nañu soxla xaalis parce que man damaa yaakaar opéré parce que loolu la ñu waxoon sama jabar mënoo am doom normal il faut ñu opéré la ñu jox ko rendez-vous lundi lundi da ngay ñëw fi ñu opéré la wala ñu jaarale la beneen hôpital affaire bi jotagul samedi rek biir bi commencé métti mu dem foofu. Mhm. xam ngeen ka kaam gis ngeen ko doo leen ko opéré yaa ngi dégg léegi après dégg si diggante bi dégg man bi may wax ak sama eh, sage-femme bi ba mu ne ma sa jabar mënul wax téléphone damay fay bi ndege sama jabar. génn na àdduna dee na man loolu laa mën a wax loolu laa mën a jàpp ba keroog mooy am lu li ma leer parce que ana nit ki ñëw bëgg a wortil nekkul ay jëkkëram jëkkëram mu ngi koy woo téléphone ay mbokkam ñu koy woo téléphone nga ne da ngay fay téléphone am téléphone jaamur loo koy fayee. Mhm. yaa ngi dégg léegi après ndeke de sage-femme bi jël na téléphone sama jabar téléphone sama jabar mu woo rakkam mooy faatu. Mhm. di laaj kooku sama numéro loolu yëpp mu ngi fi arrêté yëpp tegal benn benn. ñu ne absu ñu ne bu mu wooyee kooku xam nga dafa tiit mu ma yow yaa jëkkër Mbacke Mbacke Ndiaye Fatou mu ne man déedéet man rakam la mu laaj sama laaj Fatou sama numéro est-ce que xam nga Mbacke Ndiaye numéro jëkkëram faatu mu ne ko waaw mu ne Fatou léegi xaaral ma coupé ma woote ma jox ma numéro bi mu coupé ma woo Fatou Fatou jox ko sama numéro Fatou sax mu ngi koy laaj moom Mbacke lan moo ko dal Fatou ma ta lan moo ko dal sage-femme bi mu ma xaaral ma woo jëkkëram ba pare. maa ngi jógee jam ñaajo maa ngi jógee jam ñaajo e eh, barñi diggante barñi e Tingéej mooy si usine ciment bi mhm. sama moto foofu laa tollu téléphone bi sonné ma droité wuyu ma ne allo mu ne ma allo grand ça va mooy sage bi de mhm. mu ne ma foo toll ma ne ko soxna si eh, damaa xaw a sori maa ngi jógee ni barñi di ñëw ma ne ko su fekkee problème xaalis nga may laaj yëbbante naa sama jarbaat xaalis indi na ko ci hôpital bi war na ñëw mu ngi ci hôpital bi. Hmm. mu ne ma non du problème xaalis dafa am li ma la bëgg a wax. ma ne ko soxna si lépp loo ma bëgg wax rek sama soxna ay mbokkam jigéen ñu ngi ci hôpital bi wax leen ko man damaa a sori. Hmm. mu ne ma non li ma la bëgg wax mënu ma ko wax jigéen góor kese laa ko mën nag ma commencé jaxasoo bi fi ma taxaw noonu di téye moto bi ma commencé lox hmm. billaahi. ma ne soxna si xanaa naroon wax jàmm loo loo ma bëgg wax mu ne ma tuddal yàlla. santal yàlla sa jabar dafa bëggoon am doom faatu na ma ne ko Faatumata faatu na sama doom eh sama jabar Faatumata mu ne ma waa gaañu na ma ne ko léegi ana bébé bi mu ne ma noo jotul am doom dafa deewaale biir bi billaahi ma taxaw foofu jaxasoo ma ne ah lépp yàlla la parce que man ñàkk naa sama yaay 2007 ñàkk naa sama taw bu góor bu am 15 ans amul gu ñetti at ma ne ko lii yëpp loo gis jeex bakkam bu musa a dund dana mus a ñam dee. ndeysaan kul nafsin zaaiqatul ka mhm. ma taxaw foofu tuuti benn oto romb na eh, romb na ma ah, mu ne ma garan lan la mu ne ma ma ne ko dañoo ma woo léegi sama soxna faatu na mu ne ma fan mu ne mu ne ko hôpital Mamadou Diop Dakar Liberté mu ne ma noonu soo mënoo fii am koo bàyyi sa moto bi man mun naa la yóbbu ma ne ko garaawul ma ne ko garan garaawul après ma taxaw foofu tuuti ma am li ma tari tuufuli raay sama jaram taal moto bi eh, ram ndànk ma ñëwee ba ci sama ker fi ma dekk ma fekke buntu bi tëjuwul mooy buntu xam comme kero location buntu entrée bi daan kenn du ko tëj. Hmm. man nag sama nekk buntu bi dafa tëj comme takkul ma continuer dem ci hôpital bi bi ma demee ci hôpital bi ci hôpital bi laa yem ci buntu hôpital bi laa yem ma fekkee foofu auto police commissaire Diopol ma ne mais auto police ci biir hôpital bi. wante moment boobu man dama ma dugg sama ma xool sama jabar ci ban situation est-ce que génn na adul wala man ba léegi ni affaire bi dama dama dama am dugg hmm. dee na wala deewagul hmm. en tout cas moom sage-femme ma ba sama jabar faatu hmm. man maa woo ay magam ñi nekk ci hôpital bi ma ne ko ah sage-femme bi de woo na ma mu ne Fatoumata dee na magam mu ma noonoo deewul de Fatoumata mu ngi ci biir de ma ne ko non sage-femme bi woo na ma mu yaa ngi dégg léegi après kon moom kon kon kon moom bi muy décédé. Hmm. ñi mu àndaloon te nekk ci hôpital bi yëguñu ko. yëguñu ko yëguñu ko magam yi ñu ngi foofu yëguñu ko parce que sage-femme bi man la woo. Hmm. ñu xam mu xamal ma sama jabar faatu na man maa woo ci mu nekkaloon ci hôpital bi astu man ko sage-femme bi de woo na ma mu ne ma faatu ma ta faatu na astu mu ne ma non non non de par ma mu ngi ci biir moom sage-femme bi man ko ah sage-femme bi de moom moo woo léegi. ma coupé sama téléphone jël téléphone bi dugal ko ci biir ci biir maal moto bi sama téléphone yi ñu ngi sonné rek wuyu ma maa ngi ñëw. léegi bi ma ñëwee ci hôpital bi ci buntu hôpital bi fekke fa oto police ma dugg ci bi ma dugg bi may dugg ma fekke sama jabar ay mbokkam sama ay yeneen mbokk ñu ngi taxaw man léegi ana Fatoumata ñu ne ma Mamadou Fatoumata de dee na bul ko jooy ñaanal ko ma toog foofu tuuti ma jaxasoo. ñoom kan moo len ko wax. après man maa leen ko wax. d'accord après xam nga man maa woo Astou ma ne ko ah sage-femme bi dafa xamal Fatoumata gi génn na aduna. Hmm. après ñu commencé foofu yuuku léegi après bi may dugg bi ma dugg ci bi ma fekke commissaire Joppol de na constat bi yëpp fottu sama jabar gaañu gaañu yi téye téléphone soo bi ma dugg ma fekkee foofu sama dëkkandoo mooy paa bi ma luwee sama nekk. Mhm. sama beneen dëkkandoo sama ay yeneen ak eh, bokk sama jabar ñooñu ñu ngi toog ñoom yëpp kenn gisul sama jabar de. ñu ne kenn kenn kenn amul droit gis eh, Mbacke tant que ñëw ma jàkk jëkkëram ñëwul. Mhm. bi ma eggee eh, ñu ne waaw kii mooy jëkkëram commissaire ñëw mu ne ma kii eh, femme bi yow yaa nekkoon jëkkëram ma ne ko waaw mu ne ma ban jour nga gis gis sa jabar ma ne ko démb vingt et une heures laa jóge ci moom bi may bàyyee ko ci moom e mbokkam e doomu magam laa bàyyi sama nekk tey ay mbokkam la yendu ci dafa yendoo poot beneen mbokkam ñu ma kii tey ñun ñoo yendu dafa yendoo poot ba 18 heures yaa ngi dégg commissaire jël téléphone bi après jël foofu sage femme bi seen tur bind seen numéro carte d'identité nga fekk ma commissaire Joppal 10 heures jël leen néew bi ngeen yóbbu ko. hôpital Idrissa Pouye Grand Yoff setoo ngeen bàyyi ko foofu ba lundi ngeen defal ko otos léegi si diggante bi sama soxna bi mu génnee aduna asu ci astu moom lu mu wax sage-femme bi duggal nañu asu ci biir ci biir seen bureau ñetti yoon sage-femme bi duggal nañu asu ci biir seen biro di enquête asu soxna si lan la seewoon xanaa dafa xeex xanaa dafa amoon problème asu asu mu ne leen. kii ñu benn kër wante chaque jour ñun ñoo yéen kii mësul am ay jëkkëram problème. yow bi nga ñëwee ci hôpital bi. Uh-huh. ba waxtaan ak commissaire ba pare. Uh-huh. da nga jubal directement ci sa soxna wala. non bi bi ma ñëwee ci hôpital bi bi ma waxtaanee kii commissaire ba commissaire dem def ko saa ba pare dem ma ne sage-femme bi est-ce que mun naa gis sama jabar mu ne ma waaw dafa am lu ñuy def suñu paree da ngay dugg gis sa jabar ma ne ko xëy na dañu koy opérer pour ñu sauver xale bi parce ko waxoon opérer. comme soxna si faatu na ma ne ko man ba léegi maa ngi jàpp xëy xale bi mun na mucc mun nañ sobe xale bi billaahi ñu dugg de seer bi ma jëndaloon sama jabar bi doomam bi Ibrahima seer bi maa ko jëndoon sama xaalis seer bu weex keroog sama jabar bi mu dem defa yóbbaale woon seer bi xëy na su amee doom ñu jël seer bi ñu xotti seer bi ñu ko takkee boppu soxna si ak kanam bi yëpp mu ngi am dërëb bu bees tak ba matuwaale la même bi léegi après beneen kooku yaakaar naa ba saa stagiaire la dafa génn taxaw ci buntu mu ma grand ma jóg bi may dem sama jabar papam mu ndaw moom bëgg ma topp ñu ne noo kii di dugg man leen mais kii day dugg ñu ma kii du dugg man leen mais kii day dugg ñu ne ma kii lan la bokk sa jabar ma ne ko kii sama goro la sama jabar papam génn na aduna kii moom may soxla si day dugg léegi ma duggandoo waaj waaj mu ngi tudd Muudu Njaay bi ma tu bi ma bi ma duggee ci biir salle d'accouchement bi ma fekkee sama soxla ñu ngi koy teral ci seet yàlla. ñu koy teral mooy jigéen ñi fu ñu amee doom. mooy saal si taabal saal di accouchement bi taabal bi taabal yooyu seen taabal yi kawe noonu taabal yi sew yi. ñu muur sama jabar yëpp yere. Hmm. sama jabar loxo yi la def loxo yi si biir bi. bi ma ñëwee noonu sax comme dañoo taalum pantalon ma gis biir bi muy commencé yëngatu ma ne man kese sama xel ma ko non kii deewul de wante man affaire bi sax dafa ma dépassé man damaa soke ma dem ba tiim sama jabar muri ko bi ma ko muuree bi ma muri kanam bi ma muuree kanam sama jabar billaahi damaa arrière. ma gis situation sama jabar bi bu mu nekkee ba mattuwaale lamine bi ba lamine bi mu ngi lang bopp bi kanam bi toj ba wala deret bi deret bi mu ngi sañe deret bu bee tak man leen mais yen xanaa kii dafa daanu sage-femme bi mu ma noo sa jabar daanu wul bi mu ñëw dafa indaale gaañu gaañu yi ma ne ko soxna si c'est faux wax boobu wérul waaye yow wax boobu waroo ko wax yow wax naa yéen téléphone yéen kam moo kam moo ma xamal sama jabar day matu mënul wax téléphone da ngay fay téléphone bi yaa ngi dégg après papam ñëw muri ko papam mu ne noo kii defa daanu gisoo dërëb bi. Mhm. yaa ngi dégg ma génne mu at bu ma boobu xam nga man foofu xulóowuma benn médecin dooruma kenn saagawuma kenn yaa ngi degg te man mënoon naa éliminer mënoon naa éliminer mënoon naa éliminer foofu mënoon naa leen éliminer ñoom ñëpp. Mhm. wante ñu ngi ci dëkk Luwa saagawuma kenn xulóowuma kenn ma kenn yaa ngi dégg ma génne mu ñu ne léegi ambulance bi lañu lañu ko yóbbu. ñu jël ñu ñu dem génnee eh, sama sama soxna man maa ngi toog de dugal ko ci ambulance bi ma yegg ma sama benn xarit stage fan bi soofor ambulance bi ñu yóbbu ko ci guddi boobu setoo mu ñu ne amul place stage fan bi bàyyi ko benn papier ñu dem ñu ne il faut ñu yóbbu ko hôpital dara jàmbu géejuwaay ñu bàyyi ko foofu ba di ñu doo ko dem jëli ñu indi ko setoo ñu defal ko otos ci guddi boobu ñu yóbbu ko. gis nga bu ñu demee ba hôpital hôpital setoo sage femme bi wàcc dugg ci biir bu mu ci biir daanaka mën na foofu 30 minutes génnul bi muy ñëw mu ñëwaale ñaari ñaari mercenaires yu góor ñaari mercenaires yu góor. mercenaires mhm. yi dañoo muur sama sama jabar rek maa ngi maa ngi taxawoon di tim sama soxna de sama xarit mercenaires yi dañoo muur sama jabar kanam bi rek ñu ne mais xanaa yéen kii dafa amoon tension kii dafa daanu léegi li mu maa ngi taxaw de sage-femme bi mun ma garal arrière tuuti arrière tuuti ma ne ko ma arrière tuuti sama soxna gis nga sama xarit bi mu gisee sama jabar bi bopp bi écran bi li mu li mu xoolal jàpp bopp bi yuuku man maa ngi taxaw di xool sama soxna de man damaa soke mënu ma wax dara sax damaa soke ñu jël xoolal eh, merci yi xool lambu biir bi lambu biir bi lambu lambu lambu maa loolu loolu yëpp maa ngi am yaakaar est-ce que kii kii dee na wala deewagul. merci mm-hmm. yi lambu lambu lambu ñu ne ma il faut ñu dugal ko ci morgue bi après laa doog am con laa doog a confirmer sama sama soxna génn àdduna mm-hmm. léegi ñu dem mu ne ma dem fay ñu dugal moor ñu dugal sama soxna ñu ne londi ñu dem jël koor bi keroog loon di ay quatre heures laa yeew quatre heures laa départ fii Liberté dem ci hôpital bi keroog foofu laa jullee fajar. d'accord waaw léegi mën nga ñu tegal audio yi nga xamante ni doon na ko doon nga ko discuter ak sage-femme bi ci hôpital bi. waaw audio yëpp mu ngi ni man maa jël sama responsabilité ma te audio yi danaa leen danaa woon photo yëpp audio yëpp mu ngi ni waaw. yi nga doon. dellu leen. si. d'accord pour ñu xamul rek que ojo mm. yi dañ koy dugal mm. nit ñi mën a xam que ni soxna si bi muy départ këram ah. ak bi ngay wax ak moom ak bi mu ñëwee ci hôpital bi ci ah. condition yi la nekkoon waaw mm. léegi maa ngi teg audio yi xoolal par benn benn ki sama soxna moom nga doon waxal ah naa appel quoi d' accord léegi du nga ci biir. waaw ba nga fi nga nekk. léegi du ci biir. ñoom loolu la ñu gis gisagu gis kenn ma par benn benn audio yi dellu na ko. allo allo. tas tas yi d' accord loo jël tas nga jël mu ne ma waaw. léegi amoon ne ko amoon ni ma ma ne ni ma magam mu ne ma ne moom instant a dem. d' accord ma ne ko léegi yow kese yaa dem. d' accord ñu nee na su eggee foofu lu mu mënta nekk danaa danaa lijjanti ma mari nga ma woo ko bi sama jabal dégg nga. moo nekk yaa ngi hôpital eh, ko mu ngi la nga wax ko est-ce ma ba sonn ko ba sonn kooku jël ko. ci waaw gis ngeen. d'accord gis bi. moom laa ko ji moom seer bi maa ko sama doom Ibrahima bi mu nekkee liir. seer seer bu weex laa ko jëndaloon. Mm-hmm. gis nga moom bi muy dem dafa yóbbaale seer bi sage-femme bi dañoo xotti seer bi ñu takkee ko bopp sama jabar asu sax bu ñu commencé xotti seer bi asu asu laan lañ ko seer bi pour lan la ñu ne soxna si dafa commencé woon woote te loolu amul c'est faux dem naa ba tiim sama soxna sama soxna xoolal xoolal commencé wul saa am doom billaahi man sama seetlu bi fa laa ko fekke ci boppu soxna si e kanam bi yaa ngi dégg léegi yow yow imagine yow soxna nit ki ñëw bugg a bugg am doom kooku lan moo toj eh, gémmiñ bi lan moo toj kanam bi lan moo toj bopp bi sama soxna bi bi muy daanu dafa dopp man dofuma tim naa sama soxna waa hôpital di Diop ñoo rey sama soxna ñoo rey sama jabar saa femme bi ba léegi ñoo ñu ngi continuer liggéey dañoo yàq sama aduna ñoo rey sama jabar reyaale sama doom billaahi yaa ngi dégg léegi xoolal après gis nga jour boobu bi euh, jour boobu bi may àndee noonu changement bi yow yow xam nga nit yow man Dakar juddoo ma fi man maa ngi juddoo Kolda sama soxna na sama ay mbokk yi ñu ngi may woo sama mbokk ay jabar ñu ngi may woo xam nga changement bi lan la wax lan la wax sama xarit mu ne ko ah yow kii li muy kii li téléphone bari na de moom loolu lu si yoonam yow moo am sama nakar sama mbokk yi ñu ngi may woo ñu ne moom li may mu ne moom man li may li may li may wuy téléphone bari na de dafa tiit yaa ngi dégg sama sama xarit bi ñëw mu ne ma ah kii de nee na yow li ngay wax téléphone dafa bari ma ne ko moom lu ma ne ko ma ne ko garaawul bàyyi ko noonu rek yaa ngi dégg. ndax jàppoo ni euh, dañ laa bëgg dugal wala dara parce que sànq. dañu ma bëggoon dugal ñu ngi doon laaj ba xam yow da nga doon dóor sa jabar. dañu ma bëggoon dugal parce que sama soxna bi mu génnee àdduna. Mhm. xam nga ñoom xamuñu woon téléphone bi arrêté na téléphone soxna si moo leen arrêté téléphone audio yëpp naa ko dugal naa ko ci kele. Mhm. danaa ko denc ba xoolal ñaari kele laa ko dugal am yeneen audio yi ma yi ma tasaare jox naa audio yi ay journaliste yi bari Sénégal parce que dañoo bari ay affaire affaire nopp noppal tey su ma amoon su ma nekkoon doomu ministre wala ma am wala ma am xaalis instant ni sama kaa xam naa sama soxna ci ban condition la génnee aduna comme boo néewee doole amoo xaalis da ngay am kaa balaa ñuy sotti da ngay daw ba sonn man lii du ma xoolal du ci tayal danaa dem ba jeex ba ma xam sama soxna ci ban condition la génnee aduna hmm. lan moo toj boppam lan moo toj kanam bi lan moo toj lan moo toj ci eh, gémmiñam bi yaa ngi dégg hmm. parce que affaire bi bu mu amee ba sama bokk jabar yi commencé jooy gardien hôpital bi moo jëkkee wax affaire bi kay dafa dafa doy waar parce que ndaw si das ki moo ko wàccee fii léegi léegi mu wàcc moo wàccal boppam garde saakoom ni ñu ma fi dugg ci biir. yaa ngi dégg xam nga loolu su fekkoon sama jabar yow sama sama jabar kanam bi yëpp dafa toj kooku mun na romb doo gis gaañu gaañoom i bopp bi yëpp kanam bi dafa toj ba gémmiñ bi dafa toj kooku est ce que mun na la romb doo gis gaañu gaañoom yaa ngi dégg dugg ci biir salle accouchement bi mun nga nekkee foofu moom stage famille ñoom ñoom mu ñu gis gaañu gaañoom léegi ñu bàyyi ba sama jabar génne àdduna ñu ne ma non sa jabar bi mu bi mu ñëw dafay indaale gaañu gaañu est-ce que loolu xel nangu na ko d'accord yaa ngi dégg léegi sama soxna bi mu génnee àdduna absu dañoo dugal absu seen bureau yi ñetti yoon di enquête absu soxna si lan la see woon kanaa soxna si dafa am dafa amoon problème lan la xoolal jéem a dugal yaa ngi dégg absu mu ne leen kii musul ama jakaram problème kii jakaram sajjul day taal oto am ñëw ñëw ba ci kan bi indil ko foofu dépense yi am yenn ginaar la ko indil wala yàpp wala yenn saa yi jëkkëram woo ko mu ne ko sa ginaar wala sa yàpp si néeg bi musul sàjjur jëkkëram li muy jënd fa guddi moom su ñaw su desee fii la ko indi ci kàmb bi kii musul musul ama jëkkëram problème yaa ngi dégg man tamit bi ma jógee noonu bi ma jógee noonu ba ma ñëw dugg ma dugg rek damaa ñëw damaa ñëw rek sage-femme bi sage-femme bi ñëw ma garaan yow lan la sa fekkee man gisuma gisuma sama jabar xaw ma saa lan moo xew man dee na rek laa xam sama dëkkandoo paa bi ma luwee moo moo leen njëkk waa kii amul ak kenn problème kii musul amaat kenn problème yaa ngi dégg ma ne ko soxna man sama jabar amul ak kenn problème sama jabar daawul xuloo nit amul ak kenn problème fekkee man gisuma soxna si sax xaw moon woon sax gaañu gaañu moo ko rey yaa ngi dégg. léegi bu ñuy jëlee néew bi ñu yóbbu ko hôpital Idrissa Pouye jour boobu ay londi ñu koy defal autorisation dañoo muuri kana sama jabar la ñu ne non ndaw si woole ma jëkkër ji woole ma jëkkër ji. doon def autopsie bi waaw. bi may dugg heureusement tamit sama jabar papam ki ma duggaloon ci hôpital bi Muudu Njaay bi may dugg ko tamit topp ma ma ànd moom ci biir. ñu ne kii na génne man leen mais kii mënul génne sama goro la ka waa ji mu ne ma yow sa sa jabar li mu dee métti na de sa jabar kanaa dafa daanu sa jabar li mu dee métti na de bopp bi kanaa may dafa toj. ma ne bi man sama soxna wax naa moom téléphone ba ci biir hôpital bi. li ko mun ta dal ci biir hôpital Mamadou Mamadou Diop la ko dalee. yaa ngi dégg ñu ko defal autopsie ñoo génnee sama doye sama doom sama waa ji mu ne ma yow sa doom bi sax mënoon na mucc sa doom bi amoon na 4 kilos ak doom bu goor ñoo gén ñoo ñoo génnee xale bi. yaa ngi dégg ñu waa ji mu ne ma lépp waa opital bi la même keroog bu ñuy bu ñuy bu ñuy sànq sama soxna sama soxna tantam mu ngi tantam mu ngi taxaw ñi ko ñi ko defal ñu ne ma wallaahi lii ñii ñii essayé ni waa sage-femme bi war ñu kenn warul leen bàyyi saa ñu ñu ñu traîner yaa ngi dégg sama jabar li mu génnee àdduna dafa metti garab dafa metti mhm. yaa ngi dégg léegi sage-femme mi yow yaa woo police balaa waa ji balaa ndaw si jëkkëram ñëw léegi yow loo enquête foofu nit xanaa kii daawoon na xeex xanaa kii daawoon na xula d'accord léegi yow bi nga ñëwee gis fa auto bi. Hmm. Euh, est-ce que xawoo jaaxle ndax bu doon dee naturel la est-ce que jar na auto bu ñëw. ñoo xam na soo gisee ñu woo woo police ñoo xam nañu du du dee dee naturel. ñun xam nañu loolu parce que man bi ma gisee foofu police man sama xel bi nekkuloon ci sama jabar billaahi man moment boobu man moment boobu sama xel bi mu ngi si xaaral ma dugg gis sama jabar dee na wala deewul. da nga jàppoon ni auto police bi ñoom leneen moo waaw leneen moo indi foofu. bi ma demee ma ma fekkee sama eh, police bi salle d'accouchement bi laa doog a comprendre fi affaire kaas sama jabar moo indi foofu. man ma léegi comme dugg ma ci biir ba léegi xaw ma lan moo xew bi ma duggee ci biir ma gis gaañu gaañu yi laa doog a comprendre lan moo xew. projet bi yëpp man yor naa ko papier yëpp mu ngi nii par benn benn danaa leen ko woon par benn benn par benn benn sénégalais yi gis àdduna gis waaw olof ñaan nee na ku bugg dee weeku waaw ku bugg dee weeku lépp mu ngi nii lépp euh, lii nag boo ñu ko gisee mooy autopsie autopsie nag pour ñi ko xamul mooy. mu ngi nii autopsie autopsie pour. d'accord d'accord autopsie bi. li analyse yaram moo wonal écho yi tamit. Mhm. par benn benn laa lay won. Mhm. par benn benn laa lay won. tourné ko. par benn benn non par benn benn laa lay mhm. sama sora def na foofu ñetti écho. mosul dem beneen hôpital. Mhm. hôpital Mamadou Diop foofu la ñu defee visite. foofu mu ngi nii. papier yëpp mu ngi nii. Mhm. Mhm. yëpp mu ngi nii gis nga. yëpp mu ngi nii après danaa la woon écho yëpp papier yëpp après autopsie mu ngi nii. lii mooy autopsie bi mu ngi pour ñu ko xamul mooy. nit bu gaañoo autopsie bi moo nekk nii. d'accord autopsie pour ñu ko xamul bu gaañoo. Euh, dañ koy yóbbu ci médecin yi nga xamante ni dañuy xool. autopsie bi moo nekk nii ci la gaañoo ak ci naka la gaañoo. oto si bii moo nekk nii mhm. gis ngeen léegi xaaral ma gëndal leen carnet yi et écho yi analyse yi yëpp du ma ci bàyyi dara yaa ngi dégg bii moo nekkoon carnet bii moo nekkoon carnet moo nekkoon carnet am moom Mbacke Ndiaye Mbacke la tuddoo bi ma ko tuubuloo ñu tuddee ko Fatoumata Bintu mu ngi ni dinaa leen woon lépp benn benn gis nga écho yi mu ngi defal ñetti écho ci biir bi ñetti écho la def. Mhm. gis nga écho yi mu ngi ni mhm. danaa leen woon par benn benn. te écho yi tamit wanewul dara luy wane ni sa jabar dafa am blessure. sama jabar am non non sama jabar amul benn problème déggoo dama def karaté ñu ñëw bokko benn salle salle foofu laa xamante ne soxna si. foofu laa xamante ne soxna mu takk ko tuubuloo ko. 2019 mhm. laa ko takk soxna sama jabar mosul am beneen feebar. à part daawoon na ma jàmbat boñ buy metti loolu moom parce que man lépp li may wax dama koy assumer. à part boñ buy metti sama jabar musuma jàmbat beneen feebar. gis nga écho yi mu ñetti écho la def. Mm-hmm. bi lan la war a ni ko rey. non autopsie bi ci waa ji li ma wax mu ne ma sama sama soxna doom bi fu mu tëddoon foofu dafa dekkule te loolu daanu daanu daanu moo ko mën a indi dafa dekkule sama jabar bi mu daanoo dafa doppu man dofuma tiim naa sama soxna. loolu autopsie bi wax. non nee na nee na sama jabar eh, amoon na xaw ma beneen feebar dem na ba am problème nooyi. Mm-hmm. man loolu mosuma ko xam ci soxna si. mosuma ko xam ci soxna si xëy na fu mu daanoo foofu loolu mun na loolu mun na ko arrivé foofu mu ne xale bi fu mu tëddoon dafa décollé man du ma médecin xaw ma en tout sama jabar da doon defoon visite defoon ay analyse sama écho am yëpp yaa ngi dégg. autopsie bi ñoo def lu non non commissaire commissaire police man parce que police bi moo ma jiitu foofu. Hmm. police bi moo moo jox ndigal pour ñu yóbbu sama soxna ñu defal ko autopsie. d'accord police moo joxe ndigal. Hmm. loolu moo tax ñu sama jabar ñu defal ko autopsie. Hmm. gis nga keroog garam billaay bi may lijjante papier yi man dem fekkee defal nañu sama soxna boo pare ñu ngi boole boole sama soxna ay sama doom ma dem ba muri mu dem dindi kees bi ma xool sama jabar et sama sama doom sama xarit moo sama sama xarit moom moo moo ma jëlee foofu. dañuy génnee sa doom. dañuy génne xale bi doom bu góor am 4 kilos ay boole ko yaayam yëpp ci benn kees. bi ma ñëwee muri bi ma meññee ma muri kees bi ma xool sama jabar. Oh. ma xool sama doom wallaay sama yaram yëpp sama tànk yi dafa de oh. mënu ma woon dara. maa ngi téye sama doom bi Ibrahima ma ñëw xoolal bi ma génnee kees bii nii gis sama jabar gis sama doom ñu boole ko benn kees wala sama yaram bi yëpp sama tànk yi dafa dee mënu ma dem mënu ma def dara. Oh. sama xarit bi moo sëriñ moo ma ñëw jëlee kooku. tamit bu ñu yóbbee sama sama jabar ak sama doom ñëpp la ñu suulandoo ci benn ci benn pa billaahi billaahi garal li ma dund instant nii su ma la ko expliqué woon doo ko gom xam nga ñu bari dañuy wax gomal yàlla man akamaa gom yàlla man ñàkk naa sama yaay. Hmm. lan moo gën a for yaay ñàkk naa doom. eh parce que man sama sama yaay sax bi mu génnee àdduna maa ngi toog toog ci toog wala def si boppam mu ñaanal ma. Mhm. wante foofu sa sama yaay bi mu génnee àdduna man jooy ma sama yaay bi mu génnee àdduna kenn defal ko otos. sama taw bu góor bu mu génnee àdduna même pas ñetti at kenn defal ko otos. Mhm. léegi xam nga lii lan mooy lan moo indi otos bi parce que dafa gaañu. dafa gaañu situation bi ma fekkee sama jabar. billaay su ma dëgërul woon instant yii dëkk na amee wallaay tëj naa sama nekk deux mois fanaan ma foofu. ma dem fanaan ci chantier yi man sama benn xarit ba am na benn guddi maa ngi tëdd sama jabar dafa ma feeñu ci comme gént mu ne ma yow lu tanga nga tëj ne bi doo fanaan ci ne bi man instant nii maa ngi si jàmm ñaanal ma rek. ndeysaan billaahi laa doog a commencé fanaan sama nekk wante billaahi azim même suñu saal sax keroo bi may doon noonu parce que ñoo ñoo bokkoon saal ñoom it xam nañ ko dañoo doon def eh, dem def passage si si eh, tournoi damaa jàlloon barke dem mu ñëw ma mu pour ma dem ñu takk takk ma si tournoi. sawaru ma woon parce que saal bi su ma duggee saal bi sama xol bi day jeex. yaa ngi dégg ma xam ma xoolal ma ne garaawul ma dem doog a dem ñu def lu ñuy def billaahi yow léegi xoolal xam nga Sénégal ñu bari dugg nañ dugg nañ ci eh, kaso ci RL ci RL gis nga téléphone bi tey su nekkul woon téléphone soo na si moo ma sobe parce que saa bi mënoon nañu may mënoon nañu dañu ma parce que lu tax ñu woo asu parce que asu su asu su yeewul noonu su wax su foofu dara li ma mën a dugal instant yii police ma léegi booba man ma ñàkk sama jabar ñàkk sama doom am naa fi yeneen doomu am fi am fi beneen jabar ñooñu toor ko sama jabar ay ay yaayam toor ko ay doomam yi toor parce que sama jabar am na ñeenti bant doom bi mu yóbbaale moo naroon nekk cinquante doomam yaa ngi dégg. Mhm. parce que man bi ma ko takkee am naa moom benn doom bu góor ñu tuddee ko Ibrahima Xalilullah te fekkee am nañu am na yeneen ñetti doom moo yoroon cinquante yaay. billaahi gis nga bi mu génnee adduna ju bari dañu wax ah kii de yaayam torku na. yaa ngi dégg wante yaayam ko gom yàlla la billaahi bu ñu demee ba suul man ba léegi gisuma yaay ji sa yaayam sax mu ngi jooy ba keroog bi ma domante comme jën jëndoon la fi lal man maa demante yaay lal bi moo yóbbante ko yaayam keroog lal bi bi mu demee ba yaay ji gis gis lal bi yaay ji def commencé jooy après maa ngi wax moom téléphone ma ne ko mais bul jooy ñaanal Mbàkke rek mu ne ma noo Mbàkke kay am naa jot bu rafet instant ne mu ngi ci aljanna yi parce que man Mbàkke sama xol bi sedd sama xol bi sedd na sama soxna billaahi sama soxna sama xool bi sedd na ci moom. d'accord billaahi. ci wàllu yoon. fan la ci toll ak lan lañ la. non mu ngi ci mu ngi tribunal mu ngi justice mu ngi man dem naa justice bi dellu na ma dellu na audio yi dellu na yëpp comme affaire yoon moom foofu moom duma ci sori. d'accord moom duma ci comme mu ngi ci yoon foofu duma ci sori. wante am naa droit may jooytu sénégalais yi àdduna jàppale ma nii nii damaa jëloon avocat aw ma doole parce que soxna si moo yoroon seen kër. papam dafa génne àdduna bàyyi ko ay rakk yu ndaw yaayam ay doomam parce que doomam ay saay doomam ay doomam yëpp saay ni yaayam moo leen yor sarte bu sama sama jabar yoroon ci seen kër ay saay ni sarte boobu man ko yor parce que man maa jël sama responsabilité sama papa léegi mu am téeméer at barke dem sàmmaa yi wax ma mu ne ma Mouhamad mu ne ko waaw mu ne ma xaw ma tey wala wala suba wala gannaaw suba même su ma génnee àdduna bul mus a fat bul mus a fàtt yaay yaay yaay yaay Mbacke bul fàtt yaay bul mus a bàyyi yaay Fatmata ma ne ko papa kooku man du ma ko bàyyi kooku sama yaay la. bi ma demee toog ay yaayam ma ne ko xoolal jàppal sa doom génn na àdduna de wante tey man maa sa man maa sa taaw. billaahi taxawaay bu sama jabar taxaw foofu man xam naa ko taxawaay boobu danaa ko taxaw aw ma doole nag aw ma doole. taxawaay boobu moom dinaa ci taxaw incha allah parce que mënu ma àndal sama jabar bi mu dund tuubuloo jigéen mu nangul la ko. xam nga loolu moom moom ma ko mënu ma ko fay yàlla kese moo ko mën a fay. Mhm. tuubuloo nit mu nangul la ko di julli di woor di jàng alquran man man maa ko di ko di woor. Mhm. Eh? di julli di yàlla def la li gën maa ngi ko ñaanal yàlla ko yalla yaram. wante du ma mës a fàtte yaayam. parce que papam bi muy génne àdduna yaayam ci néegu ñàkk la nekkoon. Mhm. liggéey bu muy liggéey nii di ay mbindaan bi faraatu dugg natte. teggi natteem. teggi natteem yëkkati xaalisam jaarale jaarale ko sama loxo. keroog man man man bu ma maa ko gunge ba ci seen oriel mu jël oto dem jënd ciment ñu muul la yaayam tabax la yaayam bâtiment mhm. bâtiment boobu sax paregul keroog bi ma waxee ma mu ne ma eh, su ma amee fi doom ci jàmm insha allahu su ma commencé sama liggéey damaa bëgg a eggali sama bat ñu raa ko mhm. yaa ngi dégg jërëjëf ok ñi nga xam ne yéen àndoon na ñun duñu suivre xam naa li ñuy wax rek mooy nañu gën a jàppale waat askan bi nañu gën a waat nañu gën a taxawaat askan bi parce que ci affaire tribunal parce bi ma jël avocat bi bi ma ñëwee ma expliqué ko cas bi dafa ma laaj 500000 ma ne ko 500000 ma ne ko ah man day aw ma yaa ngi dégg ma ne ko instant nii fu ma nekkee nii 50000 kese laa yor te 50000 bi bu ma su ma la ko joxee nii su ma ñibbee sama dépense dinaa ko leen ma lépp mu ngi ci loxo yàlla parce que instant nii pour mu xam sama jabar ci ban la génne àdduna jaral na ma lu su ma amoon xaalis tey tey tey su ma amoon xaalis bi ma mën a jël avocat yu avocat yu mag essai ni mun naa ko jël mun naa am parce que aw ma xaalis maa ngi di cinquante mille yu ma jox ko avancé. parce que dañoo waxtaan ama bu ne ma trois cent cinquante mille nga jox ma jox ko cinquante mille bi avancé comme nii nii nii comme joxuma ma xaalis xaalis bu des essai ni su ma ko woowee téléphone du jël. am na beneen avocat nag kooku def ma bëgg a jàppale am na am na beneen avocat kooku def ma bëgg a jàppale kooku moom fayuma ko dërëm. kooku bi ma ñëwee ma expliqué ko sama cas mu ne ma xoolal danaa la jàppale parce que yow instant ni kenn kenn waruloo laaj xaalis sax yaa ngi ci situation bu métti. d'accord yaa ngi dégg. d'accord d'accord donc euh, fi nga daanelee rek fa laay ñëw nañ ko jàppale. Mhm. nañ ko jàppale nañ ko taxaw parce que li muy dund nii metti na trop nañ ko jàppale nañ ko dimbali parce que ki nga xam ne moo yoroon euh, soxnaam soxnaam yor seen waa kër ba tey yàlla sunu borom jëlee fi soxnaam ci anam yoo xam ne métti na trop. moom it mu am courage am ngor toog ni man la sama soxna doon def seen kër dama koy continuer donc kon kii jar naa jàppale ñu ngi ñaan képp koo xamante ni mën nga ko taxaw mën nga ko jàppale nga def ko te yàlla tax dinañ def numéro boo xamante ni képp ku ko bëgg a jàppale nga woo ko jàppale ko ci te yàlla tax di waxaat nag ni Sénégal ñu jàppalewaat euh, nit ñi nañu yërëmaat nit ñi parce que tey kii soxnaam condition yi mu demee ah wax dëgg yàlla jàmbaar te na courage parce que man mii Euh, sama yaay daanaka ci condition yu mel nii la demee mu metti torop man sax moom moom ëpp maîtrise parce que ñun keroog bi ñu li dalee xeex nañ ci hôpital ba. mais teewul tamit ngay muñ am waaw ñun bi ñu dalee xeex nañ a éliminer ay nit. d' accord donc comme moom am na. jigéen même góor sax xeexumaa kenn dóorumaa kenn fuluwumaa comme moom am na courage yu dem ci yoon ñu ngi ñaan yàlla na ko suñu borom jàppale yàlla na suñu borom gën a may xolu muñ yàlla na la sunu borom taxaw ba mbébét bi nga amoon sa soxna ak njabootam yàlla sunu borom def ko di wax na ko ñëpp jàppale dinañ ut numéro boo xamante ni dañ ko ci def pour ketal ko ngir nit ñi mën koo jàppale mu continuer mission am continuer jàppale bi nga xam ne tamit doon na ko jàppale soxnaam ak seen waa kër mën cee concentré wu ci liggéeyam tey dafa yor yeneen njaboot soxna soosu tey bàyyi na fi tuut tànk donc ñëpp moo leen di ñeenti bant waaw bàyyi na fi ñeenti bant ma juure sama doom mm-hmm. Ibrahima mm-hmm. loolu laa juure yeneen doomam d'accord te ñoom ñëpp ci parce que ay doomam dañuy woor. Mm-hmm. lépp ci télé laay waxee. Mm-hmm. seen maam xam na seen ma instant yii su ma ko woowoon saa su ma ko ma ne ko loo manqué dafa ma jéem a nëbbu yenn saa yi damay woo sama jabar rakkam ma ne ko xoolal loolee manqué aw de waxuma après man dinaa ko lijjante parce que soxna soxna si moo yoroon kër gi xam naa moo yoroon kër gi su nii rek xam naa. aduna après day rey mérite bi yàlla yàlla loolu yëpp lépp baa ngi ñaan yàlla yàlla may ma kattan bi ba mun a jàppale sama bopp jàppale sama sama goro d' accord incha allah dina am donc ñu ngi ñaan na ko ñëpp jàppale incha allah lépp lu ko waaye mën a jàppale cent franc ba mille franc ba lu mu a doon rek nga jàpp ni kii war nga ko jàppale te yàlla tax nga jàppale ko dinañ ci def numéro téléphone bi incha allahu rabbi euh, di leen jaajëfal di leen jox yeneen di daje di suñu yeneen émission di sant aussi tamit euh, sama frère di Fernando nga xamante ne tamit vraiment moom sama xarit la di sant tamit sama frère boobu da baax euh, di wax ni tamit képp koo xamante ni am nga problème euh, boo xam ne bëgg nga ko partager boo ñëwee ci people 221 sunu service commercial dinañ la taxaw képp koo xam ne am nga jafe-jafe tamit boo ñëwee ci sunu service commercial people 221 wala nga dem TikTok ci compte boobu ñuy wax siwal ma incha allahu rabbi boo ñu woowee dinañ la wuyu boo ñu messager dinañ la tontu pour jéem laa taxaw say soxna people 221 nekkalu fi buur nekkalu fi baadoo la ñëpp la fi nekkal lépp loo xamante ni jafe-jafe askan wi la boo leen ñu contacter nga dem TikTok siiwal ma incha allahu rabbi dinañ la taxaw ba lépp loo xam ni am nga ci yaakaar rek dinañ ko def ànd ak yow te duñ la seetaan ci xeex bi di leen jox yeneen dig daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.